juróom-ñetteel ba ñu xam ne ñaar ñi nga xam ne ñoo séq gone yi kenn ku nekk dangay ngay xëy ci coono muy ku góor ci muy ku jigéen njaboot gi ak kër gi sàmm ko loolu wàllu jigéen ji la léeg-léeg mu di ci sonn coor yu metti nag nga xam ne duñ noppalu bu nekkee ci gone gi bu ñu jógee ma nga ca waañ bu jógee fi ma ngay bale fële ma nga fële nangam nga xam ne ci suba ba ngoon daanaka bootul daa taxaw ku góor kaat la muy yàndoo ca bitti moom yàlla rek ko xam yàlla xam fa muy góor góorloo la mu fay daj suñ borom ko xam waaye mënu koo nett ni sax moom ñooñu buñ dikkee kenn ku ci ne am na lum laaj buñ dajee ñoom ñaar ba wàcc ku jigéen ci mbirum lu yomb la kàddu gu tuuti rek bu koy encouragé ci lii mu doon def ah wax dëgg yàlla lii day am na solo kër gi day tubaarkàlla set na tey de moom wax dëgg xale yi ñëpp set nañ mel na ne day coono bi de mi kaddu googu doy na ko sëkk ku góor keet nag doy na ko wax dëgg yàlla soxna si teeru ko teeru bu baax dalal ko yëg ko ne yëgal ko ne ci coono nga jóge wan ko ci bitti sax ne moom fàtte ne coono bi mu yendoo woon moom soxna si moom it loolu doy na ko lu mel noonu rek day daal di indi ak dal ci biir kër gi juróom-ñeenteel ba حسن معاملة الزوج مع عائلة زوجته وكذلك العكس مما يضفي جمالا ورونقا على الحياة الزوجية نيوم نيار رك كفل لن نيوي سي نيوم نيار جاري وي دين كنتي وي كان كوشنة دقاء أم أي بوك لأجل كان كوشنة أم دايك باي إبتي جيغي جوخ سبوكي سخنة إبتي جيسا سخنة دي جوخ سي بوكي بوكي loolu day jëmbat li dox seen diggante da koy suuxat daa bëgg a wax léeg-léeg nag problème yu bare bare bari dana xew euh, di juddoo ci faaraay ku góor ki ndax lu gën a bari ñoom dañuy dëkk ci këram sa yaay day dëkk ci kër gi wala sa baay sa soxna ñëw dëkk léeg-léeg sa diggante sa yaay ak sa soxna ab sëy dana ci yàqoo ndax soxna si dañ koy tuumaal ne moom day kii daa takk jabar mu di ko fiire ndax xëy na la mu doon am ci doomam mënatu ko cee am ah loolu c'est naturel maanaam waratu ko cee mën a am ndax yoru woon benn responsabilité ci jamono yooyu léegi dañoo yan ab responsabilité ci ci loosam daa am jëmm joo xam ne moo ko war a dundal moo ko war a dëkkal kon lam doon joxe mun munta bañ a wàññi ñu tuumaal soxna si ne dafa fiir léegi-léegi ndaw si ñu ñëw ñu tuumaal ko moom it ne moom mii dafa ñëw sëy si di xool yaayi borom këram mel ne wujjëb day wujjeeg moom su xëyee sax fekk yaayam ci néeg bi nuyu ko salaamaaleykum mu ne man lu tax ñëwul fekk ma ci sama néeg nuyu ma te xam ne yow yaa war a dem nuyu ci sa boroom kër nag su ko defee ay yëf di xew foofu léeg-léeg mu dem ba gi dayo am na benn médecin buy nettali ndaw soo xam ne dafa dëkk ak yaay jëkkëram dund bi tàng metti metti metti ba jéggi dayo ndaw si jàpp ne soxna si da koo bañ dafa bëgg mu tas wala da koo bëgg nangam di jëflanteeg soxna si jëflante yu metti bu boroom këram génnee lu ne lay woon soxna si bu dikkee mu xaw a wàññi ba mu yàgg benn bis mu ñëw ci doktoor bi ne ko dëgg dëgg man dama bëgg loo xam ne moom lay jox soxna si ndax mu génn àdduna maanaam da ko bëgg a rey ñëw di ko laaj garab goo xam ne bu ko ko joxee mu dee docteur bi ku ñëw la ta xariñ mu laaj ko li ñuy dund mu nettali ko lépp loo àggal mu génn benn butéel bu am ndox nekk jox ko ko ne ko boo demee gis nga lii boo ko ko joxee benn yoon wala ñaari yoon wala jafe wala fukki yoon day dee te su dee dee gu gaaw ay enquête mën na ciy dugg te su ci duggee danañ seet gis na yaram wi posé na ci te bu boobaa da ngay am problème léegi ni ngay def da ngay fexe ba di ko defaral ay ndékki ay café ay nangam yu neex di ci toppal tuuti fii deux mois su ko defee muy kii ndànk-ndànk deux mois trois mois su génnee àdduna yi dañuy wax rek mort naturelle la amul benn problème ndaw si commencé bu xëyee defar omelette am toqal ci as ndoxam dikk defar ah waaw lekkal waay di ko wax ak moom wax ju neex a neex a neex bu def tuuti bu dem andi café léeg-léeg mu andi boisson toqalal dara mu ne ah man de sama doom ji wax dëgg yàlla mujj diggante bi tàmbali di ratax soxna si ah yow de wax dëgg yàlla ana sama doom fu mu génn mu ne ko waaw da ngaa sori woon da ngaa génnoon jëflante gi soppiku soppiku mu gis weer jàllagut mu gis seen diggante dara xewatul lu dul jàmm mu dellu ci docteur bi ne ko man de damaa bëggoon a arrêté mbir mi te nga jox ma ma di ko jox loo xam ne duutu faatu ndax soxna si na moo sama yaay ñoo yam fi mu ne kepp wax la gis nga li ma la joxoon mooy ndox mii nuy naan dara new ndox mu ñuy naan dong mu la joxoon waaye daf maa wóor ne bi nga ma nettalee ni ngeen di jëflantee yow mi yaa nekkul ci yoon gis nga soxna soosu boo jëflanteeg moom jëflante bu rafet yaa koy moom bi nga sey sey jàppal ne sa yaay ya nga bàyyi ci kër ga moom nga fekkaat fii ngir defalanteeg moom soo defee noonu rek problème du dox seen diggante waaye boo bëggee jàpp ne rek ab jaambor la boo xam ne daa ñëw di xëccoog yow sa jëkkër loolu mooy indi problème bi loola daal di saafaraw fukkeel ba moo di al ilaamu al jadid xatarun ala al buyut yii ñi jëfandikoo tey ci ay moyen de communication yi ñu yor tey moo xam télévision bala moo xam rajo bala moo xam téléphone bii nga yor ak ya ca biir yépp nag internet ba kooku musiba la ci kër yi su fekkee ne jaarale wuñ ko fañ ko war a jaale lim mën a yàq kenn xamul nu mu toll la ca gën a doy waar mooy dagg relation yu doxoon ci diggante nit yi waxtaanatuñ da ngay fekk famille bu toog ñépp kenn ku nekk rek yor ak téléphone mën nañoo toog diir bu yàgg kenn du wax wala ki ngay waxal sax mën ngaa wax ak moom ñaari ñaari yoon ñett ba mu yàgg mu ne ah nga def yow laa doon wax moo ne de fekk moom ci beneen monde la nekk bu bokkul ak fi ngay waxe am na benn waaye mu ne waa ji daa toog ci këram ba mu yàgg ñoom ñëpp seen jumtuwaay yi ñu doon jëfandikoo courant bi coupé diir bu yàgg kenn mënatu cee jokkoo ñu mujj toog di waxtaan mu ne moom bi courant bu coupé boobu tax na ci la trouvé ne waa këram ndeke ñii am nañ culture ñi am nañ teggi ñii am nañ nangam xamu woon waxtaan woowu ñu toog di ko waxtaan ci la trouvé ne ndekete moom am na njaboot goo xam ne ay nit ngi ci yoo xam ne ñii yewwu nañ ñii xam nañ lii ñii xam nañ lii kooku musiba la benn xale ñi ngi koy nettali rek bu yàggut ñaari waajuram dañoo xuloo ba war a tàqali tàqalikoo li xuloo bi metti metti mi ngi yor appareil rek moom mel ni yëgut lu xew ñu xuloo ba ne dañuy tas séddoo bagage yi kër gi ñu séddoo séddoo séddoo ba noppi kenn ku ne jël wàllam ñu ne waaw nguur si nag ku muy àndal ñu waxtaan d'accord ci ne nañ ko laaj ku kum tànn rek mu ànd ak moom ñu ne ko yow koo bëgg a àndal mu ne di séddoo ngeen seen i bagage ak seen yëpp ba pare mu ne waaw mu ne kii yóbbu wifi bi rek laa àndal kooku tëlatul lenn hmm? wiifeem ak appareem loolu la tal waaye xalaatul ay relation ci diggante doomu aadama ak kenn kon moyen yooyu àgg na koo xam ne ci doomu aadama yi tey bu ñu wattuwul diggante nit ak nit day mujj relation bi dafay yàqu ña ngay waxal daal mooy ña ci bitim réew ña nekk feneen ña nekk feneen ngeen bokk nekk ci ay groupe sa njaboot gi toogoon day dem ba dara duutoo ko xam ci ñoom ñoom it ñu xam ci yow dara su ko defee fëleen dara di dugg it tabbal ci ñoom ay njaaxum ak ay xalaat yu baaxut ak ay mooy yàlla sax doo ko yëg parce que taloo ko yëg fukkeel ba ak benn moo di tànn tànn waxtu lenn lu ne nga tànnal ko waxtu su ngeen di discuter ci benn tomb jaadu nañu am waxtu woo xam ne ci ngeen war a toog waxtaane ca tomb boobu sooy sàkku dara ay doléance wala lu mel noonu war ngaa tànn waxtu woo xam ne dëppoo na ak woowa tem bi ngeen di waxtaane sax wala ngeen di ko junj rek war naa fekk mu dëppoo ak situation bi ngeen nekk nit mënta jóge ci liggéeyukaay ba aku ñaqam ne cëpp ci kër gi nga ne ko li desoon ci dépense bi tey la jeex kooku xamut fu mu jëm musiba facture courant de agsi na facture courant te nuyoo salaamaaleykum waaleykum salaam facture baa ngi nii loola foofa du waxtoom dañ koy teelu ndànk xale bi de dafa soxla ñu jëndal ko ay couche fekk yéen a ngi tiim añ bi lool loolu du waxtoom ki tiim añ bi di añ nañ wax ak moom ci yëf yu sell ay nangam ay nangam ba añ ba noppi lu jëm ci couche yaa yi ñuy defal xale yaa yu mel noonu yooyu ñu bàyyi ko ba noppi moo tax leen lu ne tànnal ko waxtoom ak waxtu dana dana sakk bunti werante ak bunti gëddaate ndax kii door a wàcc ne cëpp rek nga ne ko dépense amatul kooku bul séentu ne kàddu gu neex la lay wax mukk te fekk nag defoo dara ndax li nga wax am na waaye ni nga ko waxee ak fi ko waxee foofu baaxul tànnal beneen waxtu boo xam ne moo gën ba ca tegu wattandikul yow ku góor ki ak ku jigéen ci di melal sa ki nga nekkal ca ñeneen ña maanaam yow jigéen ji bul def ci jigéen ña di wax ak ñoom ci sa jëkkër yow ku góor ki bul def noonu dama ak ñoom di wax bul def mukk sa jëkkër wala sa jabar mu doon temu waxtaan ci ñeneen ñoo xam ne seen yoon nekku ci ak la ngay wax lu mu mën a doon nag bu doon lu baax sax jaru ko nag ndax lu baax loo rek ngay wax mën naa indi njaaxum jigéen mën naa togg ki jigéen di wax ci jëkkëram ba ñi jóge fa ne kooku moom faw dana dana ko gis njaaxu mën na caa juddoo safaan beet noonu góor gi mën naa dem di wax jabaram ba góor gi jóge fa ne kooku moom ëpp naa mucc musiba di kon bul def sa morom mu nekk temu waxtaan ak foo mën a nekk bul may kenn nit mu néewal wala mu ñàkkal solo wala muy wàññi sa ki nga nekkal bu ko may mu wax ci moom baat bu baat bu koy suufeel moo xam sa jëkkër la moo xam sa sa soxna la sa senn soxna sax bu bëggee wax ci keneen ka baat bu koy suufeel saafaraal loolu bu mu wéy loolu du yoon la gën a gaaw ci faj ko nag mooy su waxee ci moom baat bu koy suufeel nga wax baat bu koy yëkkati yow fu mu tàmmee ne su tuddee moroomam ne diw sàngam nangam nangam nga wax ko ci moom ca la rafet ca kooka duutu sawar ci wax ci lo ci loolu ndax dana xam ne loolu noppiloo ko la ñaareel bi su fekkee ne daa am lu nekk ci xolam bëggut a dégg ay tagg ca kooka te yaa ngi ko koy dégtal su xamee ne bunt bi mooy tax nga di ko dégtal tagg yi bunt boobu day daal di sakk kon wattandikul kenn di suufeel sa nit ci ci sa kanam ngay noppi ca loola wala nga di ko ca dëgëral ba ca tegu moo di rafet njort nag ca ka ca des ndax loolu day tax li dox seen diggante di gën a dëgër kenn ku nekk rafet njort ci ka ca des ne kii day na ma bëggee woon noonu la ma bëggee ba léegi loolu lu am solo la bu mu dem ba mu yàgg mukk mu ne kii xam naa ne amatuma soxla ci moom amatul soxla ci man wala yu mel noonu ndax loolu day indi ay sikki sàkka te loola baaxut gëstu sekkare jàmbur lu mat a wattandiku la moo xam sekkare téléphone la moo xam lépp loo xam ne ka ca des da koy nëbb ka ca des mu xam ne lii vie privée la dëgg dëgg dëgg loola jërte gëstu lu mu la ca may rek nga xam lu mu la ca may nga xam ne xamoo ko rafet na lool nag euh, bañ a xir lool ci nëbb gu ëpp sa diggante ak ki nga nekkal ndax nëbb gi bu ëppee day mujj nag ay sikk sàkk lay jur ki nga xam ne téléphone bi mu teg bu sonné rek mu gaaw jël ko mel ne dara dafa xew ne ko cëfit kooku ki ki toog foofu te gis muy faral di def loolu dana mujj nag mu ne kii day ni muy jëlee téléphone bi am na lu xew moo tax lu baax la saafara la soo toogee ba mu yàgg nga jël sa téléphone jox ko sa borom kër mu xool moom it noona wala su bëggee xool nga ne ko muy ni seetal xool SMS yi xool WhatsApp yi xool nangam xool nangam xam ne dara nekk loolu dana tax boo ragalee ne dara ngi ci xelam nga dindee ko noonu loolu lu baax la waaye téléphone buñ côté boo xam ne bu sonee rek nga gaaw këf bu SMS dikkee nga gaaw këf te fekk ki nga toogal kenn dong la muy sa soxna wala sa borom kër loolu moom mën naa indi sik sàkk bokk na ci it mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo ne ci seen kër di di liggéey ci seen kër ñu yëg ne benn équipe buy liggéey lañu kii day jàpp fii kii jàpp fii ñu góorgóorlu parce que euh, ab sëy bu tegu ci yoon te nara a sax ab liggéey la boo xam ne dafa yor projet boo xam ne dañ koy tegal seeni i di ànd di ci yëgu di ànd di ci liggéey di ànd di xalaat ca seen kanam ak lañ bëgg ci kanam ak yu mel noonu yooyu moo koy moo koy ràbb moo koy defar ba ca tegu mooy bul xeebal kenn problème am muskila diis ko xeet lu mu tuuti tuuti tuuti li gën mooy gaaw koo saafara ndax kat man ngaa xeeb loo xam ne danga nga naan lii day ab ab siis la mu mujj foofu nekk montagne mu daj mu kenn xamul nu mu ab siis buñ ko waxee mooy jànj bu tuuti jànj bu ndaw a ndaw ndaw bu tuuti suuf su kolewu su jaxasoo la ay xorondoom ak ay yëf si dëkk ci biir mën nga koo gis xeer fa mu xëy xëy nekk montagne moo xam ne day muur lépp problème noonu la mel day tàmbali nekk aw ferñeent soppi ko doon ak lakk goo xam ne day lakk lépp kon diisu ko xeet ba ca tegu mooy nangul nag ku góor ki ak jiiteem kër gi li wax qiwaamatu rajul ci këram kilifteefam kenn waru caa wàññi lu toll ne tarfatul ay su ndaw si moomoon adduna ak li ci biiram waa ji bu xëyee topp njaam di wut lum ndekkee wala lum añee teewut mooy kilifa ak ndaw si noonu la ko yàlla tere kilifteef boobu nag saa bu ñu demee ba suufeele ko wala suufeel ko wala ñu doyadal ko loola ci lii màbb kër yi ci la bokk xam nga ne lii xew tey ñuy wax droit de la femme di tabax ay jigéen yoo xam ne lañuy def ci seeni bopp mooy kër gi kenn yilifu ko ñaara ko séq joo xam ne ay partenaire lañ kii daa moom lii kii moom lii loolu jaaxum gënu koo rëy lu bare bari luy luy sànku tey ak di yàqu ci ay njaboot ñàkk kilifteef moo ko waral kilifa mënta ñàkk ci kër suñ jekki woon jekki ni réew mi amatul njiit kenn ku ne yaa jiite sa bopp kenn ku nekk yaay xalaatal sa bopp loolu la neex nga def kon ndax defe ngeen ne dund gi dana dem fenn loo yor boo génnee fii keneen nangu ko léegi ëpp la doole te doo ci mën dara waaye nag dafa am kilifa yoo xam ne kii moo yore lii kii ma yor sécurité bi kii ma yor nangam kii ma yor nangam kenn ku ne jox ko sa cër su ko defee dara du sooxee waaye lu dul loolu nag musiba day am mooy su njiit amatul rek dund gi fawdaa lay nekk anarchie lay nekk boo xam ne kenn du xam nos koy lijjantee nangu njuumte nangu njuumte mooy tomb ba ca tem amul ak xëccoo wala ŋaayoo wala xuloo buy am tëdu daa am kenn ku juum benn nit ay laaj lu dul àqam wala mu yor àqi jàmbur nangu koo joxe loolu rek la ki juum nag ngeen waxtaan ba mu yëg ne moo juum mu ñëw ne ah, jéggal ma man juum naa lu mel nii moom dootuma dal muy ko góor ki muy ko jigéen kooku mooy li gën a gaaw suur problème li yées ci problème mooy dem ba yëg ne juum nga ba noppi daal di gàddu sa bopp ne xalaatuma jéggalu nangam ak nangam ak nangam mu ne la yaa def nangam nga ne ko yow defoon nga nangam bëgg dem di ko seetal leneen te moom it loola du saafara kon al i'tiraafu bil xata nangu ne da ngaa boole ko ak al i'tizaar muy jéggalu loolu mooy jëmbat dunduk ñaari way dencante ñàkk a nay ci ku góor gi ci yi nga xam ne yu mënta ñàkk ci dund gi la loola lu mënta ñàkk la nay nag buñ koy wax mooy la defoo ko te fekk mën nga ko defoo ko ba mu mat te mën nga soo ko mënul nag da def la tolloog la nga man borom bi ne li yunfiq du saatin min saati ki yàlla jox lu yaatu na def lu tolloog moom wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu allah ki nga xam ne yàlla dafa xatal wërsëgam it na joxe lu tolloog lim am su ko defee mu bañ a nëbbu njabootam su xéewal tuuroo ñu yëg ne tuuru na ñu yëg ko bu baax ci seenu dundin su tuuru wutit nag ñu xam wax leen ko su nekkee ci jafe-jafe it woo leen ñu ñëw mu ne leen kat jafe-jafe am na nga xam ne su wàññee lam doon def ñu xam ne ah lii kat daa am lu ko waral kon nay mooy li la war defoo ko ba mat te fekk mën nga ko waaye bëgguñu it nag yàq wane ne rek am naa tey kon damay def ba def lu ma mënut su ko defee bu ëllëgee nga delluwaat yor sa loxoy kese déedéet loolu dund gi du noonu borom bi tabaraka wa taala daf ne euh, bul bul tàllal say loxo ne jël leen waaye bul ko def ci say loos itam bul def sa loxo ci sa loos mooy bul nëb ba nga xam ne doo jox kenn dara waaye bul tàllal ne jël leen yëf yaa ngoog kum neex nga ñëw jël kon ëppal baaxut waaye digg doomu mooy baax wartandikul roy ñeneen ñi ak jëfandikoo xiyaas loolu jigéen ñi lay faral di dal léeg-léeg xool nga daal kër goo xam ne ñoom seen kër nii la mel nangam lañ fay dunde nangam lañ ko organisé boo fa demee saal ba lee fa nekk booy dugg ci kër ga nangam ngay gis nga ne lu tax man sama kër melul ne kër diw loola njuumte lay indi sunu borom tabaraka wa taala ni mu séddalee nit ñi ñii gudd ñii gàtt ñii di gudd fan ñii di gàttu fan ñii mel nii ñii mel ne ñii dëkk fii ñii dëkk fee wërsëg yépp noonu la ko defee yii doon wërsëg yu yaatu yi doon wërsëg yu xam kon boo nekkee nit li ngay xool mooy ak góorgóorloom ak jomam ak li muy am ndax mi ngi koy indi ci kër gi waaye fu mu fu ne rek rafet rafetlul loola bul sànni say bët nag mu jëm ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngay dund la ñuy dund te xamoo lu mu doon léeg-léeg nga xool kër gi ci bitt ni ñii moom day mel ne jannatun tajri min tahtiha al anhar booy xool da nga naan lii moom àjjana la joo xam ne dex yaay daw ci suuf te leen ne ci biir nag kenn xamu ko kenn xamu ko wax nañ ne soxna daa ñëw ci wala waaja daa ñëw ci ak kilifa di ko jàmbat mettitu këram ak soxnaam lim tànkeeg lim koy wan ak mu ne ko ñëwal danaa la danaa la def wan loo xam ne boo ko gisee da nga muñ woo ko ba ci néegu fanaanoom mu ne ko làqul fee mu làqu bi waxtu tëddam jotee bi mu agsee moom kilifa goog yi soxna si fa war a ñëw bi mu agsee lam jëkk a def mooy fokk kaala ga sànni daal di koy pet ne ko bu bëccëgee ngay sugg sugg nag ñu defee ne kilifa nga te xam ne yow nangam ak nangam ak nangam mu sëgg rek ne yang soxna si di xas di kulla di di wéq di lóor ba ba mu sonn mu ne ko ana nga waa ji ne ko maa ngi nii mu ne ko man mën ngaa dem génn ba mu jógee foofa nag mu xam ne moom wax dëgg yàlla ak soxnaam nu mu mën a mel àggul fii loola daal di doon saafara ci moom kon kër ga ngay siyal borom bi tabaraka wa taala ne wala tamuddanna aynayka ila ma mattana bihi azwajan minhum zahrata alxayati dunia linaftinahum fii wala rizqu rabbika xayrun wa abqa borom bi nee na bul sànni say bët ci kër jàmbur ngir ay taarub àdduna rek booy gis nii ci kaw te fekk fitne àdduna nga ca suuf maanaam taarub àdduna ci kaw daal laloo ak fitne àdduna ca suuf ñoo ànd fitne jooja lu ne mën na koo doon yàlla moo xam lu muy doon kon daal yow ñaanal sa borom mu wërsëgal la bis bu nekk bu ndékki jotee nga am loo ndékkee bu añ jotee nga am loo añee bu reer jotee nga am loo boo defee loolu ànd ak sa wér gi yaram di xëy di liggéey kenn gënu laa texe ci kaw suuf yonente bi alayhi salaatu nee na képp koo xam ne xëy na ci këram am lu mu dundee ca bis boobee bis ba rek la na waaye ànd ak daluk xelam ak sécurité nekk di jaamu boroom nee na kooku ku ko gën a texe amul ci kaw suuf amul ci kaw suuf kon eh, ci ak gàttal daal mooy ñaari tomb yooyu muy tomb bu njëkk bi nit ki fan lay jaar ba takk soxna ak ba takkee soxna ba noppi tomb yii nga xam ne moom lañ jàngat ni ma ko waxee woon jëmul ci wàllu fiq waaye wàllu social ak jëflante ci la jëm yooyu mën naa doon ndimbal ci eh, garanti nag lu bare bari ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci biir kër gi waaye eh, ànd ak loolu du doy lu dul ne war nañu def ay séminaire yoo xam ne li koy tax a jóg mooy jàngal nit ñi kër ci boppam nañ ko yore ndax ñi jàngee yépp noonu la ñu war a jàngee loolu te yor kër du du lu yomb de lu jafe la Ibn Sina ci téeréem bi ñu wax siyaasa day wax ne ku mën a boole ñaari jigéen ci genn kër genn kër nga boole leen fa di leen yor am at te deret tuur wut bët fukkul bopp tojul nee na mën ngaa yorum réew téere ba téere politique la maanaam day wax ne képp ku mel noonu mën ngaa yorum réew ndax sàmm sàmm ay nit ñu ne ci suuf nga nekk responsable mooy li gën a jafe moo tax dañuy wax ne bokk na ci fekk ma sun borom tabaraka wa taala yonentam yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn yonent bu musta sàmm ak jub ñu ne ko ah yow sax doon nga sàmm mu ne ah doon naa sàmmal waa Màkka ñu di ma fay ci ay jamono lu tax yonent yi di sàmm ak jur mooy dafa am lu leen yàlla naru sàmmloo ca kanam xam nga ak jur lu ëpp xel la ku ko mën a sàmm ba régler ko ba boo taxawee ne bar wala nga ne kor ñi ñëw boo tegee lii ñu xam ne lii la boo jëmee fii boo doxee ñu topp ci yow te ak jur la gu amut xel nga mën leen sàmm ba teg leen ci yoon woowu kooku bis boo demee bañ na la yaay yonent bi kat yaa war a sàmm nit ñi su boobaa dana gën a woyof ndax sàmm ko amum xel moo gën a yomb sàmm koo xam ne ko amul xel la kon euh, loolu mooy xikma bi taxoon moo tax mukk bul euh, woyofal lu mel noonu noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq waxtu wi mat na ba tegal fukki minute su ko defee kon euh, ñu delloo kàddu bi Cheikh Ali Badar wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain xam naa ñun ñëpp ñoo ko déggoo wax ci mat na doy sëkk leer na nañ eh, tey dund bi ñaari rek moo ko séq ci denc ak ci denc bi góor ak ci jigéen kenn ku ne yaa ngay ñaan denc wala bu dee ci denc ba noppi ma ngay ñaan seen góor yi te li ñuy denc wax ne mu ne da ngay gis ne réalité la ndax réew yu bari waxuma la réew yi sax waaye dëkk yu bari boo xoolee sëñ yi far dañuy wax ne balaa am at cinquante pour cent yi day day dal te li ko waral mooy ñu mu junj léegi bëgg lu am bëgg lu mën nekk moo koy euh, damay waxtaan ak sama benn xarit yi nga xam ne problème yi tam ci diggante euh, jigéen ñi sëy ci biir kër gi ak borom muy yaay borom këram mu ne lan nga jàpp ne ak laabire la soo laabire yu jëm ci problème yooyu xew ñu ngi koy dajee loolu mooy benn dina bi ci toog mu ne lan lay laabire shabaab yi maanaam xale yi góor yi nga xam ne ay jullit lañ ci jamono ji nga xam ne yàqu da cee tasaaroo lool rawatina nag ñu jëm ci màcc wàllu màcciyaat yi mu ne ñooñu nan nga leen di laabire eh, ak yan orientation nga leen di yoon ñetteel baa ngi mu ne kii waxambaane la woo xam ne yaayam dafa sax ci moom mu takk soxna ci benn néeg te ñooñu gërëmul seen i jikko muy laaj nag moom loolu mu dee rek maanaam xam na ne ñooñu moom seen i jikko loolu jikko yi ñu gërëm muy laaj xam loolu lan lay moom moom am na beneen tayib diggante problème yi am ci diggante jigéen ji ëpp borom kii sëy ci kër borom këram ak yaayi boroom këram wala baayu borom këram lu gën a bari sax yaayi borom këram lay faral di doon saafara ko euh, day responsabilité ñépp moo tax kenn ku nekk dana am lu jëm ci yow ci ay kàddu mi soxna si ñëw sëy si ci boppam mu xam li ko indi ci kër gi sëy si jaamu si yàlla la def si lu la yàlla digal la nga fas yéene nekk ak njub te bëggoo dara yàqal la mu bokk ci li la mën a yàqal nag ñi ngay dundal su fekkee ne jëflante woo ak ñoom ci jikko yu rafet walla nga mere leen ba tax nga soppi sa jikko joo xam ne melul woon noonu loolu daf lay yàqal moo tax sa yaayi borom kër ci li ma waxoon léegi rek ci lay del si mooy jàppe ko ne sa yaay ja nga bàyyi ca kër gi loolu soo ko defee ak réeroo du dox seen diggante yow mii di yaayi borom kër bi yow itam na am taxawaay boo xam ne moom nga war a am kilifa nga boo xam ne da ngaa yor sa ñaari doom yoo xam ne ñoo bokk ci sëy jàppal ne xale bu jigéen bii bàyyi kër yi waaye juróom ñëw dëkk si ci sa kër yaag say doom sa doom ji jigéen day def noonu dem ca kër loo bëggalul sa doom ju jigéen joojee fa muy sëy bul ko bëggal doomi jaambur yi ñoom sa kër kon rafetalul sa jikko te jàpp ne sa doom moo nekk sa kanam yow boroom kër bi nekk ci diggante ñaar ñooñu itam dafa am lu la war mooy xaq yaay dafa am birrul waaliday ni daf laa war rafetal jëmi ci sa waajuru jigéen ak wu jigéen ne bu góor l'islam moo la ko sant waaye sa soxna nag sa responsabilité la boo xam ne dañ la koy laaj ëllëg moo tax faw nga équilibre nag ci diggante ñaar ñooñu xam ne ay àq yu bokkut lañ ki jox ko àqam kii nga jox ko àqam waaye bu leen def ñu doon ay wujj ñoom ñaar léeg-léeg jëfiinu ku góor ki mooy tax ñoom ñaar ñiy wujje du ñu ñaari soxna waaye kee yaay la dafa am loo xam ne moom la soxla ci ci itte woo ko toog ak moom di waxtaan ak moom mu aajo woo dara nga def ko aajo jëndi garab nga dem jëndali ay garab def nangam yu mel noonu bokkul ak kii nga xam ne moom dafa am leneen lu ngeen séq loo xam ne daa bàyyi këri waajuram ñëw dëkk foofu yeneen i itte la aajo woo yoo xam ne bokkul ak ittey waajur bi bul ne mukk su ma xottilee sama soxna faaw ma xottil sama yaay sa yaay bu la neexee mën nga ko xottil nam la neexee waaye bul geesoo gun soxna si xamal ne lii mooy jamono yi ma bëggee xottilee soxna si boo jekkee ba jëmmi jamono nga xottil yaay ji boo jëndalee kii dara bàyyi ba mu yàgg nga jëndal ki ci des waaye boo dee ñëw di indi ah lii kat sama yaay yow yaa ko moom lii kat yow soxna si li nga def seeni bopp mooy ñoom ñaar ay wujj lañ yaay jaa ngay xool lu tax mu jox ko couleur bee te joxuma bii yaa ngay xool moom itam lu tax kon góor gi am na foofu responsabilité équilibre ci seen diggante ñoom ñaar ba du leen kereel ak xëccoo ñoom ñaar te kenn ku nekk mu jéem a góorgóorlu ba jox la sa wuj sa sa wàll te bu ay ñagas-ñagas amee itam mu bañ a wëlbatiku faral yaayam carrément faddiku koo xam ne doomi jaamul la wala mu ñëw faral soxnaam daal di faddiku yaayam ñaar yooyu lenn waru ci am daa war a doon koo xam ne ab régulateur la boo xam ne dafay régler ñaar yëpp bu wéetee yaayam waxtaan ak moom fii nangam ak nangam wax ju dal yoo xam ne dana ko delloo si bu wéetee soxnaam moom itam waxtaan ak moom wax ju dal wan ko rek kii sama yaay la mënoo maa bëgg bañ ko mënoo def nii nangam nangam wax man su ko mbir mi dana kon daal ñetti responsabilité yoo xam ne ndaw si am na ci yaay bi am na ci moom ku góor gétam am na ci responsabilité am naa nag ndaw ñi ak euh, bëgguk alal ak euh, yàqute gu bari gi mooy liñ doon wax léegi nii rek mooy li ma daaneele sànq ci soxna si doon wax ne alal la jiital ñu di ko xamal ne alali àdduna du caagin mooy lépp boobu laaj day mel ne tontu nañ ko ki nga xam ne dafa bëgg a takk ci yaayam dafa bëgg mu takk ci askan woo xam ne eh, gërëmloowuñ leen eh, bu mu doyloo rek ne askan woowu gërëmloowuñ leen wala kër googu gërëmloowuñu leen waaye na xool ndaw si ci boppam ndax moom kuñ gërëmloo la wala déet ndax kër gi kët mën nañoo siiwee leneen ba noppi ndaw si melul noona moom yuxriju alxaya min almayiti wa yuxriju almayita min alxay fu baaxut léeg-léeg lu baax sax fa fu baaxit léeg-léeg lu bon sax fa moo tax bul atte nit ki ca kër gam dëkk bu ko atte ca askan wam bokk waaye xool ko moom ci boppam bu dee gis nga ci ayib ju tax nga bañ koo takk kon bul ko takk te wax nag ka bëgg nga takk ko nee ko kii kat nangam ak nangam ak nangam moo tax mënuma koo takk naam dương rồi khi mà mình tới đây lại mua lên không có sự sọt nào những có vấn đề mà mình nhà thì một đêm với cô bay đi nhưng nhiều cái thế âm là cái này rồi đừng có tay của mình rồi mình tay của tay lại nhà này đi muốn đi đặt sao mình sẽ làm mình nên được có mình

waaw laaj bu njëkk bi kooku dafay wax ne euh, dafa fase soxnaam ñi won ko ne da nga koo fase ñetti yoon kon mënatoo koo takk mënatoo takk del si lu dul gannaaw bu mu dafay baax da sow ji gannaaw bu mu demee sëyi feneen del siwaat moom mu jàpp ne fase wu ko ñetti fase ñu xam ne jëmmit fase ci boppam day dugg ci wàllu li ñu tudde alqada maanaam atte bokkul ak fatwa fatwa da nga ñëw ci borom xam-xam bi nga laaj ko rek mu tontu lii de atte bi nangam ak nangam lii nangam ak nangam la atte nag boo ñëwee kii juge ci boppam balaa génn jugement am ne lii nii la wala nii la day enquête ñëpp ba xam li xew dëgg dëgg dëgg lan la kii fatwa nag mën na ne mbir mi su fekkee nii la de kon nii la su fekkee nii la nii la léegi werante nañ nee nañ waa ji da ngaa fase ñett moom mu ne man fasewuma ñett benn laa fase wala ñaar laa fase foofu la ñuy soxlaa ay seede kan moo témoin ñetti fase yim fase su ko defee bu boobaa nañu ànd dem ca boroom xam-xam ba wala ca imam ba wala ca centre islamique ba ñi bokk toog ca boroom xam-xam ya nekk foofee ñu déglu leen ana ñu fekkee ne waa ji dafa fase soxnaam ñetti fase ñu ne noo ngi nii suñ matee ñaari góor yoo xam ne ñu maandu lañ yu mat ay seede ñu laaj leen lan la wax buñ leen di laaj nag kenn par kenn lañ leen di laaj foo xam ne ka ca des fekkewu ko ñu laaj ko lu mu wax su waxee lam dégg moom ñu woo ko ca des mu dikk wax lu dëppoo ak loola te yëgoowuñ ñoom ñaar ñu xam ne kon kii wax na dëgg su kii waxee lii nag kee ñëw wax leneen lu bokkut ak loola ñu xam ne kon ñoom ñaar dañoo bëgg a xañ waa ji soxnaam waaye li ñuy wax lu dëgg loolu nag atte moo koy def kon euh, foofu dañu wax ne fase ma tas na wala tasut waaye li ñuy jëkk gëstu mooy ndax ñetti pase am na wala amul su wéree ni ñetti pase am na daal bala koo mën a takkati ndaw si moom liibar na day dem su fekkee dem na ba nit labat si ko ba takk ko ba mu sëyëg moom ba yàlla dogal pase xalaat seen diggante ba mu liibaraat waa ji su ko bëggee takkaat comme ñëpp bu ñëwee ñu bëgg a àndaat bu ko bu ko ñaanee ñu man ko ko mayaat nañ ko ko may woon bu njëkk su boobaa mënees sa ko ko may te du wàññi dara waaye faaw ñu nag ñu dem seeti eh, eh, koo xam ne moo leen di atte su fekkee nag amul benn seedeel dañoo doy dañ ne ko rek yow fase nga ko ñetti pase waaye amul ay seede su ko defee lam wax mooy dëgër nag su boobaa moom ginnaaw moo yore pase mi te nee na benn yoon laa ko fase wala ñaari yoon lam wax ca la ñuy sukkandiku ba noppi bàyyi koog yàlla nag ndax moom xam na la mu def bu ne woon benn laa def te fekk wóor na ko ne ñett la digganteem ak yàlla na am ne yoratul jabar moo xam nag digganteem ak diineem kii àtte ci kaw lay àtte waaye la ca biir nit ka digganteem ak boromam la ndax manees naa istixaaraloo nit waaw su fekkee nit ki lott na ci munu ko munu ko kon mën na ko def loo nit ndax ak ñaan la te ñaan lu manees na koo def waaye nag ñi xam ne loolu war te yàgg listixaara des ko war a jàng jaabir ibn abdullah radiallahu taala anhu nee ne kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam yuallimuna listixaarata kama yuallimuna surata min alquran nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam daf nu daan jàngal listixaara comme ni mu nu jàngale alquran kon nag loolu war a si cee sàggan des ko war a jàngal gone yi ci kër yi di ko jàngale ci daara yi di ko jàngale ci école yi fexe ba gone yi mën a mën istixaara comme ni ñuy taree alxuraan ñu mën a tare noonu istixaara ngir ñu mën koo def waaye magum jëm mu ne léegi ne mënu maa istixaara damaa bëgg ñu defal ma ko loola moom daanaka moom di wax naan mëkkalu ma faate ñoo xooyam rek kon góor góorgóorlu ci loolu ba mën ko baax na ki nga xam ne daa dem ba mu wóor ko ne soxnaam daf koy jabar njabar moom musiba la ndax jëmmi njabar ci boppam rek jëmmi njabar ci boppam kéefar la waxuma la nag la ca mën a tegu ci ay musiba ci yàq diggante ay doomi aadama moo tax kooku lañ koy dénk foofu mooy na na waxtaan ak soxnaam si su fekkee am na ay firnde yu wóor ci ne day def lu mel noonu na ko teg mu toog mu won ko lu koy won ne moom mii xam na li muy def te wóor na ko mu jël ci moom ay garanti ne loolu bàyyi na ko te duutu ko def mukk te duutu ko xalaat mu continuer di ko contrôler wan ko it ne ko foo ko defee ci foofu la diggante bi jeexe ba noppi continuer di ko contrôler su ko defee su ko defetee rek mu wàcc ko loola mooy li wér parce que kenn du ànd ak ku mel noonu nekk ci biir kër ku gëm loolu sax dund ak moom ci biir kër wóorut waxuma la mu ni ko def nag moo tax faw moom génn ca rek fi saasi

yàlla moom wala lu wala dafa def boo gisee ñoom million yi nee na mu gën jàng ko ndax la ciy toog dana ko sa ñaan lekk wala déet ñaareel naa yi mu ne kii dafa takk soxna bi ko fekkee mu bëgg ko yóbbu ca ay wëy maanaam am na bàyyi ak ko ko yóbbu foofa nee na si ne ko déedéet dama appartement wala mu ne kooku lan la

ki nga xam ne dañ koy jaayloo jaayloo gi mën naa am ay tëddiin ndax koy lay jaayloo moom am na lu mu la war a fay bu ko neexee mu ne ko boo ma jaayalee day prix bi nangam la waaye danaa la ci jox nangam cinq pour cent yi wala deux pour cent wala trois pour cent luñ d'accord mu dem jaayale ko bu ko neexee mu ne ko jaayale ma lii un million man loolu laa ci soxla soo ko mën a jaay ci lopp loola lu ca tegu yaa moom waaye man sama un million dama koy jël ba mat sëkk kooko dem jaay lu ca tegu mu jël loola dara du ca nekk bu boobaa lañ dul bëgg daal mooy mu yëkkati ko nag yëkkati goo xam ne dana lor kiy jaaylu waaye dana lor ñiy jënd itam lor gi kiy jaaylu mooy yëkkati ko ci prix boo xam ne du gaaw a jaar muy gis nit ñi di ko fay la ca waaja soxla ba noppi mu lànk bañ koo jaay mën a toog at ngir bëgg lu gën bari su boobaa mi ngi tooñ te ma ngi cay am bàkkaar wala mu yëkkati ko ba àggale ko foo xam ne ñiy jënd ñoom ña nga cay loru ñoom itam su boobaa loola du jaadu soxna si bañ ne du dund ak ñaari waajur yi ku góor gi loolu ñaari njuumte moo koy indi loo xam ne ci njalbeen ga la sëy dafa war a am ay charte su fekkee ne am na lenn loo xemmem lu wuute ak orf wala li ñu tuddee aada am na looy xalaat loo xam ne bokkul ak ni ko société bi miine loolu dangeen ngeen koy waxante ca teel ñëw na bëgg koo takk mu ne waa ah, d'accord naa ci nga takk ma waaye man di da nga may wutal sama këru bopp wala sama appartement bopp wala sama néegu bopp moo xam na mu ko bëggee su waaj a d'accord ca loolu mu dugg ci su fekkee ne moom wóor na ko ne lu mel noonu baaxut ci moom arrangé wu ko mu bàyyi mu ne ko fa kupp dem seeti keneen ginnaaw moom ku dëkk ak ay waajuram la bëgg na dem seet ba gis ku ne ko d'accord na ma dund ak say waajur mu door a takk kooka waaye lii faral di am ci njuum tey mooy bañ a def benn charte waxantewu leen ci dara ñu takk ba àggal nga de ko kaay ma yóbbu la sama këri waajur man man ma nekk foofu dag may wutal sama appartement boobu su boobaa njuumte li yéen ñaar ñëpp yéen ko def ndax la nga bëgg yow waroon nga ko ko wax teel ne ko man kat su ma la takkee sama yaay ngay nekk moom it lam bëgg waroon na la ko wax wala ne man du mën a nekk ak sa yaay ak sa baay saa bu ngeen duggee ba agsi foofu nag yéen a ngi ci jafe boo xam ne eh, yéwénoo dong ngeen mën a def jéem a waxtaan ba juboo ci dara waaye du jaadu eh, sëy ba nag di tas ci lu mel noonu te fekk waris na ko mën a di jën lijjanti ba tegaat ko ci tegaat ko ci aw yoon ndax eh, lay jaadu mooy ginnaaw lañu miin ca société ba ngeen nekk mooy nit ki bu tëkkee soxna da koy yóbbu ci ay waajuram nga xam ne loolu la société ba miin su ca ndaw sa waxul dara dañuy jàpp ne moom daa wéy rek ca lañ miin kon lu jaatu mu dem ba ca biir mu génn ca loola moo tax jigéen ji su fekkee ne bëggut a dem ca lañ miinoon jaadu na mu wax lu wuuteeg loolu balaa booba ne man kat ku ma takk rek ma yóbbu sama appartement boobu kii nga xam ne dañ koo gënale ak i wujjam mu ne ndax day ñaan baat balaa ñaan baat de mu war a jëkk a xool mooy lan moo tax ñu koy gënale ndax moom ci comportement am la ndax ci jikkoom la ndax ci melokaanam la yooyu yépp da ko war a gëstu lu mu gis ne moom mii xam na ne moom la ko kee ëppale ba tax ñu bëgg koo gënale na fexe ba kooku bañ ko ëppalee ci loola su fekkee ni ci li doomu aadama mën a fàggu ci la bokk ndax kat bari na gënale guy am ñi di ko feeñal te fekk ñiñ gënale daa am lu ñuy def loo xam ne bokkul ak li muy def moom nii su fekkee lu man la nag su boobaa càgganteem la na góorgóorlu ba kenn du ko gënale ala kulli xaal su fekkee ne mi ngi def lépp comme li ñëpp di def jàpp ma ne gënale googu dana war a mën a am wala su amee nag bu boobaa tooñ a ngi am nag su boobaa ku góor ki mi ngi tooñ su demee ba mënatu koo mu itam nag su ñaanee baat kenn du ko yedd ca loola waaye damay wax ne tas ab sëy dafa doon lu rëy loo xam ne bala caa àgg na fekk ñi jël seen matukaay jéem liñ man lépp na jéem a xool jéem a defar jéem a lijjantiwaat boppam jéem a waxtaan ak ñu ko ëpp expérience ci sëy ñi teg ko ci yoon ba mën a dellusiwaat tegu ci raay bi def noo xam ne eh, kenn du ko gënale ak kenn naam ဒီလိုတော့ပါတယ်လက်ရှိတော့ပုံပေါ်ရေးကြီးလေးလိုက်နေညာကြီးကသမဏေကြီးရဲ့ချက်စီနေကြပြန်ကြီးရေးကြီးရဲ့ဓာတ်ကြီးဝဲမာနန်လေးဝဲရတယ် mune nak dana sañe ñaan ba ci loolu déggoo ci ndax mën naa woon xewal bi ngir loolu mooy daal yëpp ne ne ko ñëw yàlla ci wàllu njàll diggante njàll wee te ñaari nag yi mooy mu ne lan ngay laajee jigéen bi nga xam ne xalaati way juróom moom la gën a dégg ci xalaati borom këram mu ne kooku lan nga koy laajee mu ne lan ngay laajee ki nga xam ne daa ne ba mën a dund soxnaam dara ci lañ war a ci wàllu bi te nee na sabab mooy ñaaw jikko boo xam ne ñaaw na ñaaw na jikko loolu moo sabab loolu mu alhamdulilah ki nga xam ne dafa ñaaw njort wala mu am firnde eh, ci kim nekkal moo xam soxnaam la wala borom këram la. ne ak dëngam àgg na ci di def sudul noona ci wàllu njaaloo loola benn mu am ci firnde boo xam ne bu leer la boo xam ne ni ko sharia waxe noonu la demee muy teg na ca bëtam su boobaa mbir ma mbir mu jéggi dayo la mbir mu rëy la moo xam ne jaaduwul ku laab ku jub ku baax muy continuer di ànd ak koo xam ne moom loola mooy jikkoom wa xurrima dalika ala almuminin la sunu borom tabaraka wa taala wax zaniyatu la yankiha illa zanin aw mushrik ki nga xam ne ku jigéen kuy njaaloo la sunu borom nee na ki koy mën a takk muy dagan wala muy doon lu jaadu sax dañuy wax mooy ab njaalookat wala bokkaalekat ku góor kiy njaaloo it kam mën a takk mooy njaalookat bu jigéen ak bu bokkaalekat bu jigéen wax xurrima dalika ala almuminin mooy jullit bi ci boppam dañoo araamal ci moom mu doon jigéeni jullit ju sell ju laab muy sëy ku góor koo xam ne njaalookat la wala ku góor ku sell ku laab muy sëy jigéen joo xam ne ab njaalookat la loolu moo tax saa buñ demee ba liaan saa buñ demee ba ba njaaloo am wala ñu tuumaal ko ci njaaloo doom juddoo ca loolee sharia may la leen ñi def li ñuy tudde liaan mooy ñu rëbboonte su ko defee sëy ba tas ba faw te dootuñu ànd moo tax loolu musiba moo xam ne euh, noonu loolu lay indi cib sëy waaye nag loolu lépp ay njort yu ñaaw ak téléphoné ne nit ak gis naa nangam ab ab SMS ci téléphone am ak gis naa message ci nangamam ak séen naa ko mu taxaw ak diw di wax yooyu yépp du ay firnde yooyu mën naa doon yoo xam ne da nga gis lu jaaduwut nga ne ko li nga def tey jaaduwut waxtaan ca ak moom ba mu bàyyi loolu waaye bu mu tax mukk nga ne day njaaloo nag te amuloo ca firnde ndax tuumaal nit ci njaaloo kat te amoo ca firnde bu fekkoon ne lislaam mooy atte dañ lay woo nga ñëw ñu dóor la ay yar ci karam nit ñi ndax li nga wax amoo ci dalil laaj bi xaw naa desee leer mooy kuy jiital xalaati waajuram ci xalaati borom këram xalaati jëkkëram ci xalaati wala xalaati baayam ci xalaati boroom këram xalaat yi dama dul xam fu mu jëm ndax léeg-léeg xalaat génn nga xam ne day yeeyoo ñu jiital ko su fekkoon ne xalaat yi baayam daa doon xalaat yu koy soññi di ko digal mu jàpp ci alquran jàpp ci sunna def nàngam jëkkër ji di ko digal leneen su boobaa daa war a jiital xalaati baay bi ci gàttal daal ki nga xam ne moo digle lu baax ko xalaatam moo war a jiitu ki digle lu baax xalaatam moo war a jiitu suñ diglee ñoom ñëpp lu baax nag nga góorgóorlu def ci def lépp suñ diglee lu bon nag bu ca topp benn du jëkkër ya du bàyyi loolu rek moo fe ne benn ñu bokk digle lu baax nga góorgóorlu ci la nga mën nga def ko ci ñaari xalaat yëpp bokk nañ digle lu bon bu ci topp kenn kii digle lu baax kii digle lu bon te digle lu baax topp ko moo tax yow góorgóorlul ba xam lu baax rek soo ko xamee ku la digal lu baax nga def ko ku la digal leneen bul ko def kii nga xam ne ñaaw jikko soxnaam moo tax mënalatu ko dara loola xëy na da ko bëggatul ci ci ak gàttal ndax lu mel noonu loolu mën na koo mën na koo indi su fekkee ne soxna si ci jëmmi boppam moom xam na ne jikkoom wala melokaanam wala comportement moo tax boroom kër bi lott na ci mbiram ci kaw loola te bëgg na sëy ba continuer moom moo war a soppi boppam ndax ñu mën a nekk su fekkee nag wóor na ko ne da ko bëggatul carrément nag moo tax mu lott ci moom kon bu mu tëyee doomi jàmbur yoru sax muy xaar mu di ko ñaan baat wala len waaye su fekkee wóor na ko ne moom bëggatu ko te bu ko tëyee fii ay lori kese la koy indil mu teel ko koo wax su fekkee ne munta muñ loola moom it mu daal di euh, sàkku ñu libéré ko mu dem yoonam loola mooy jaadu wallahu taala alam xaabarabu am solo bi laaj na day laaj duwaa bu intixaara maanaam ñaanu intixaara fan lañ koy defee ndax wala ginnaaw boo taaya ba jàng xabaar bi ba wala ginnaaw boo sëlmalee ñu koy def ñaan ñaareelu laaj bi mu ne waxambaane yi nii woo xam ne dafa nekk ci école jàng jëfe diine ci solo lépp loo xam ne sharia da koy tere waaye kon ne day jaxase góor ñi jigéen ñi mu ne ko dafa bëgg laaj ba xam nan la nan la war a moom day laaj xam nan la war benn laaj bi mu ne lan ngay laaj yéen ñi nga xam ne dafa yor day soxna te yemalewu leen maanaam maanaam seen jigéen alhamdulilah xam naa ñu mujjee ñett yooyu kon incha allah eh, listixaara fan lay nekk boroom xam-xam yi wax nañ ci sax nag waaye li gën a dëgër mooy bu sëlmalee xam ñaan yi nga xam ne sharia daf ci orienté yëpp mooy nit ki ñaan gi bu koy def mooy bu jullee ñaari rakkaam ba sëlmal ba àggal mu ñaan ñaan googu foofu mooy place am kii jànge ci école boo xam ne ay góor ak i jigéen daf faa jaxasoo su fekkee ne day jigéen ña dañuy nekk ca gannaaw góor ñi nekk ci kanam loola mën naa doon loo xam ne lu woyof la su fekkee dañuy jaxase nag jaxase goo xam ne góor di toog fi jigéen toog fi góor te nga xam ne nuñ toogee rek ci biir école bi baax na moom na góor góorlu fexe ba fa muy toog du dend ak ay jigéen ci ci biir école bi na wattandiku loolu kem kàttanam fattaqullaha mastatatum na nga ragal yàlla sa kem kàttan wattandiku ba jaxasoo googu nga mën caa mucc ci yow ngir nga mën a continuer sam njàng loolu mooy jaadu waaye du nu ubbee ci ne nit ki na bàyyi njàng ma wala na bàyyi école ba ci kaw ne ay jigéen nekk na fa comme ni ko yenn kuréel yi askanoo ci lislaam di ko waxe déedéet ndax xam-xam bi wari su ko bàyyi dee sa war a jàng xam-xam su fekkee ne école ya noona lañ mel te amoo beneen école boo mën a dem bu melul noona jàngal xam-xam bi te wattandiku lor ja ca nekk ndax kat loola nekkul ca école ba dong waaye transport public bi boo duggee ci oto yi lu mel noonu nga fay fekk boo duggee ci leneen it lu mel noonu nga fay fekk boo demee ca bureau yi fekk ko lu mel kon ku la naan bàyyil sab ngir ne ay jigéen dañ faa nekk mooy ki lay wax rek ne la bul duggati ci oto yi bul demati ci yi bul dem nangam bul dem te bu boobaat dund gu xat na ngay mujj di dund goo xam ne ba wutut fa ngay mujj mooy nga euh, nga li ñuy wax bokk xaraam mujj fab ay yat faf dal ci kaw nit yi ndax ne dund gi dara baaxatu ci faf mbir yi demewul noonu euh, xam-xam bi des ko war a fàggu continuer nag di di defar di defar di yeete di jàngale ñi xam ne lii nii la war a demee ba ba mbir ma di mën a laab nag rek ndax mbir yi noonu lay tëdde lenn lu nekk amul lenn loo xam ne daa jékki-jékki rek am dafa jékki-jékki di am ndànk ndànk di am ndànk ndànk ak jaxasoo ci biir yi daara xamuñu ko woon ñu dem ba mu yàgg ñu xam ko buy dañ itam dañ koy def ndànk-ndànk di ko lijjanti ba mu dañ rek kon daal jàngale ak yeete ak xam ne li baaxut suñ demee ba ñëpp doon ay jullit ba noppi xam li lislaam santaane ak lim santaane wut su boobaa lam santaane wut di ko tere danañ ne ko fa kupp def li nga xam ne moom la lislaam santaane ki ñàkk a maandu nag ci digganteem ak ay soxnaam mi ngi ci mooy yàlla maanaam ci mooy yàlla ci la sax ndax la jiitu mooy warul woon a takkaat keneen borom bi nee man wa in xiftum alla taadilu fa waaxida su fekkee ragal ngeen ne waxul sax de wóor na la ne doo maandu de waaye daf ne su fekkee ragal nga ne doo maandu nee na yemal ci benn si ci sàkkaa ngi fi ngay nattale waa man ñi ndax su ma takkoon keneen nag danaa leen mënal kii danaa mën mu ne bul takk waaye wóor na la ne da def lu yàlla wax mooy maandu ci seen diggante mën daa takk boo amee kàttan ki takk nag ba noppi maanduwul kooku xotti na ndigalul yàlla lu jëkk loolu yi ne woon fa waaxida dañu woon yomal ci benn nga bañ caa kon kooku ak mooy yàlla boppam la goo xam ne bokkul ak mooy yàlla ñàkk maandu gi ci boppam ndax kooku yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki jéngoon ci diggante ay borom këram yowmal xiyaam buñ ko dekkalee genn wet gi day jéng maanaam du mën a jub loola mandarga lay doon moo xam ne nit ña dañ ko cay xamee waaye loolu bokk ak mbugal mi nga xam ne mooy wàcc ci kawam xadis yu bare bare bari dafa ñëw ci bunt boobu di wattandikuloo loolu di wax la ca nekk ca ay kon na ko nit ñi wattandiku maandu nag buñ ko waxee mooy ci li feeñ li nit ki man waaye maandu mënta doon ci ba àgg ci diggante lay doxal diggante ñaari way dencante ca lal ba loola yàlla moo xam nu muy demee waaye daal fexeel ba ki aaye moom moo aaye ak ayam la bi nga jëndee jox kii dara xamal ne kële itam yeyoo na lu mel noonu sudul loo xam ne lu gaar la lu gaar mooy lan mooy kenn ki feebar na nga jëndal koy garab kenn du wax ne faaw nga jëndi garab jox ko ca de sa dara loolu ko loola lu gaar la waaye nag toog nga ba mu yàgg nga di leen xottil yéere xottilal ñëpp waxuñu ne it maandu gi mooy li nga xottil kii xottilal kee lu toll noonu kii mën naa doon yool moo xam ne tubaarikàlla la muy sol fukki meetar la kii doon koo xam ne juróomi meetar doy na ko waxuñu ne joxal ñëpp juróomi meetar su ko defee kële du xam nu mu koy def wala nga ne joxal ñëpp fukki meetar kii sol juróomam yeneen juróom yi ci des mu yore ko waaye kenn ku ne da koy solal lu yem ci moom loolu mooy maandu moo tax li ñuy tudde égalité loolu lislaam xamu ko lislaam lim xam mooy al adala maandu maandute maandu mooy nga jox kenn ku ne ak xam yemale nag mooy mooy nga ñëpp nga jox leen lenn li loolu baaxul yemale moom baaxul kon euh, defe naa ne mën nañoo taxawlu foofu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq di sant mbokk yi ak seen liggéey itam ci jàkka ji ak euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fi liggéey lépp ñu ngi ko yëg di xam ne ne li Cheikh Alioune Badara wax lu lu luñ bàyyi xel la moo di béréb bi suñ béréb la boo xam ne saa buñ ñu fi soxlaa bu nekk danoo war a daal di dagg suñu yitte sax ñëw maanaam moo am priorité nag ci béréb yu bare bare bari ndax euh, jàkka yi nga xam ne yàlla dogal na bañ leen di ubbi ñoo leen ubbi woon bañ leen di liggéey sax sooy bu mën a étape buñ toll bu nekk ñoo bokk toll ci ak ñi ko doon liggéey ba nañ ko ubbee ñu ñëw jiite ko ñu ubbee ko ci jàkka yooyu la bokk day nuroog jàkkay suñ bokk yële jàkkay Ali ibn Abi Talib jële ca Grand Yoff ñoom itam seen naa ku may xool ku bokk foofa moom itam noonu la mel eh, ci yan bokk ñoom di ko liggéey ba mu sotti ñu ubbi ko ci la bokk moo tax eh, bërëb yu mel noonu dañuy am priorité ci nun ci saa boo xamee ne soxla nañ lu fa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq te defal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaykum